c'était le peuple c' euh, est extrêmement important moom. et d' ailleurs. boo gisee sànq ma ne la un peuple résolu. est capable bëgg insister que la journée du 23 juin c' était la journée de loi pour faire du 23 juin la journée de la constitution du Sénégal ñu di ko expliquer élèves yi une constitution comment doit-on la défendre. mais malheureusement j'avais déposé la proposition de loi mais ça n'a pas donné de suite. autrement dit. Pas, oui. autrement mhm. la, juin. Mhm. lañ ci war a jàpp. mooy on ne joue pas avec la démocratie. d'accord très bien xam naa euh, dañuy terminer par yow euh, professeur même si bëggoo ñu lay wax euh, professeur justement lan la ñu war a def tey jii pour dépasser tout ça dépasser étape violence <coughs> peut-être bi ñu nekk parce que maa ngi koy wax ñu ngi jouer ak le feu parce que ay tension peut-être ñu ngi ñu ngi annoncé wu et autant pouvoir autant opposition facilité wu ñu ñu la tâche. rapidement rek comme li ma gëj a wax ma traversé quelques euh, éléments yoo xam ne. on voulait garder le meilleur pour la fin. alors euh, pour pour honorable Zator bi muy wax ci richesse ak pauvreté day am d'accord naa ci ak moom mais ñoom ñi jiite nguur gi nañ def attention am-am dafa war a méngóog nit ki li muy def. bu amee perception ni nit ki am li mu am méngóowul ak benn liggéey bu ko mën a justifier. yooyu bu génnul sax ci question bi nga wax day indi violence parce que ah, sentiment d'injustice lay indi ak sentiment de frustration boo xam ne mhm. après ci révolte la jëm et révolte boobu mën na nekk révolte bu bu violence économique bu euh, violent deuxième bi ci affaire terrorisme bi gis nga daf ci am ñaar sénégalais am nañ consensus ci perception bi ñu am ci terrorisme bi ñuy dégg ci bitim réew ay terroristes ñëw mais boo gisee mu am ci kaw dafa am benn perception bu opposition bi am boo xam ne dafa jàpp ne yet bi kat ci moom lañ ko jublee moo genre kan moo moom opposition bi tax li xaw a def mën nañ ko méngale kan moo moom bëy bi mu bëgg bàyyi boom gi moom aussi mën nañ ko comprendre du fait que am na lu passé am na ay discours yu mu dégg moo tax terrorisme bi attention sénégalais am nañ ci consensus ci ci terrorisme bi nga xam ne parce que am na ci texte bi sénégalais booy jàpp ëllëg jàpp na terroriste la sénégalais yi écrasante majorité bi duñ ko jàppee terroriste parce que ñoom perception bi ñu am ci terrorisme mooy li ñu gis ci bitim réew ay nit ñoo xam ne dañ ñëw indi ngànnaay bokkul ak ay toj au champ affaire yooyu moo tax loi bi aussi mën na indi problème bu ñu demee ba ci kanam maintenant pour ñëw ci 23 gis nga gis nga 23 juin man dama jàpp ne peuple bi moo ko moom dafa bëri ay anonyme yoo xam ne dañu génnoon manifester Sénégal nag fii il faut des cadres organisés maa ngi confirmer ne jour 23 juin M23 amagul woon woon. la preuve. bi 23 juin jeexee man mi vingt euh, xam nga M23 bi mu créé woo am na benn jour ñu organiser lu ñu tuddee congrès du peuple boo xam ne ñoom Macky Sall ñëpp doon jël parole mais man maa nekkoon deuxième intervenant bi xam nga kon kenn mënul wax rek moment boobu boo ci amul woon benn dayo bi mënoo woon nekk deuxième intervenant parce que pour waxoon dafa jafe. nañu génnewaat image yi pourtant bu ma ko wax loon ni bu buñ posé wul woon débat bi Sénégal yu bëri dinaa leen romb ay honorable Zator ñoom Moustapha duñ ko xam maa nekkoon deuxième intervenant bi donc xam naa M23 bu baax a baax gis nga bi 23 juin jeexee comme ñoom Alioune Tine euh, Kati Cissé Wan Ibrahima Badiane Badiane sax moom moom ma forcé woon ne ma noo naa ñëw bokk ci affaire parce que dafa am lu xewoon avant 23 juin parce que man le 20 euh, euh, le 20 le 23 2010 dama génne woon benn contribution bu ma intitulé woon l'heure du choix di choisir ne man damay xeex dévolution monarchique mu fekkoon ma ma nekk chef de service le 23 août mi ngi nekkoon un vendredi le lundi le non le 20 août laa ko génne vendredi le lundi 23 août ma jot sama décision bi ma dàq sama poste. chef service social. acte boobu moo moo marqué woon Ibrahima Badiane moo tax mu ne yow bi ngay wax affaire dévolution monarchique fekk na sax M23 ju doogul alors jour 23 juin dafa am ñoo xam ne pour man ñooy héros yi. te dañ leen war a rendre hommage mooy étudiant université Cheikh Anta Diop de Dakar li effectivement Moustapha li mu wax loolu la Ablaye Wade bëggoon hmm. parce que Ablaye Wade dafa peut-être ci ay renseignement sous-évalué woon impopularité décision bi ba mu jàppoon ni hmm. bu tegee ñaari camp yi bon dina ko def dinañ manifester dina wane démocratie am na mais la loi allait passer en fin de compte parce que daf ko jaraloon loo xam ne Ablaye Wade bu dul woon bu doon dossier boobu il sa trompe rarement. Mhm. mais bu jëmee ci affaire Karim Wade rek. pour la plupart du temps il se trompe. c'est le père. parce que bon mhm. y avait un biais. affectif. voilà alors bi gars yi nekkee buntu assemblée. il a fallu que étudiants yi ñëw dañu génnewaat image yi. ñi fa nekkoon. wane seen carte étudiant ñoom ñoo xaw a sax barrière ñoo dem ci gris yi. bon fan lañ jógee dama lay expliquer foofu fan lañ jógee. dañuy jóge si Omar s'il te ko war a xam mais histoire la c'est très important ñoom professeur dañu jóge Seydou Nourou Tall déglu bu baax li may wax c'est très important parce que xale yi dañu war a xam ni mu demee ñu xam ni ñii ay acteurs lañ comme ni nga ko waxee léegi te xamuñu ko te mën nga rombaay nit ñu xam ne acteurs dañ ne la meilleure manière de mobiliser la mas c'est à partir de Seydou Nourou Tall la ñuy jóge def xëy pousse une euh, euh, euh, étudiants yi ñu génn ñu ànd ak ñoom jaar di foncé. exact bu ñu génnee ñu ngi topp rek pour bi génn c'est nous qui l'avons créé. en ce moment il y avait Barthélémy Dias il y avait les Aly Mané et tant d'autres ñun la. d'accord loolu moo tax. waaw ah. ah. loolu moo tax. waaw ah. Serigne Sall bi muy wax léegi. kon xalaat mu ne dafa am acquis démocratique boo xamante ne dañ ko am Macky Sall yàq foofu laa d'accord ak yow. boo gisee keroog Sonko taxaw fi mu taxaw Seydou Nourou Tall ne damay jaar fii. parce que Macky xam na jaar foofu lan la. cest à mu am. Mhm. moo tax moo koy permettre tey yenn yi ko bañ. d'accord alors le temps oui voilà comme foofu. mënoo cee génne ay faits comme ni ko Serigne Saliou waxee. Mhm. parce que événement mars yi ay la yéwén kenn mënul dind ci bopp nit ñi que dafay influencer le reste. Mhm. du comportement des acteurs politiques ba keroog ñuy egg ci élection locale yi d'abord et 2024 la jëm. maintenant ñaari camp yëpp amoon na ñoo xam ne bokkoon nañ M23 par exemple euh, ku mel na Cheikh Tidiane Dièye kenn mënu ko génne M23 ah, waa Y'en a marre kenn mënu leen génne M23 ñoom Barthélemy Diaz kenn mënu leen génne M23 mais gis nga li ñu doon def commencé wul ci célébration bi de ñi wax na ñëw nañ yor ay pancarte leader ca M23 contre Ablaye Wade ba bu ñu daan ñëw ñoom ñëpp Macky Sall euh, ñoom Moustapha Niasse ku ci nekk say jeunes dañ doon mobiliser wu ñëw ak say pancarte